Euh, waxtaan bi day ñëw di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw et yéen ñu ko fekkee aussi euh, voilà euh, créé ngeen fi lu ne Henri Guillabert ak Moustapha Cissé peut-être que les jeunes euh, xale yi xamuñu leen xamuñu mënuñu teg euh, euh, seen kanam ci tour mais defe naa xam nañu xalam deux ah xam ngeen xalam deux alors xala xalam deux ñii ñooy sookul bi et que xalam deux dafay dellu si waat ci album boo xamante ni da ngeen koy génne le 21 janvier alors album boobu di génn le 21 janvier ngeen liggéey ko liggéey bu am solo nous qui avons eu la chance dégluwaat li ci Cheikh Tidiane Tall def li ci ñeneen ak ñeneen def dañoo dañoo kontaan ah parce que euh, ku ñëw ci seen ay spectacle da ngay nostalgique mm-hmm. euh, on vous laisse le soin ngeen wax ñu ci euh, retour boobu xalam de defaat pour génne album Henri en fait il fallait que il fallait que ñu ñu ñu jóg ci parce que ça faisait longtemps longtemps longtemps defuñu album. j'imagine mhm. ça fait plus de quinze ans ou plus defuñu album. ah oui et donc euh, dañ doon def ay concerts de temps en temps mais c'est vrai que les gens disaient waaw kañ ngeen defaraat benn album kañ ngeen et en fait finalement. c'était très difficile mais ça fait un an en fait finalement ñu toog ni léegi il faut ñu xaar defar benn album mais il faut que ce soit un album xalam. Mhm. album xalam bi lan la il faut que esprit xalam bi dugg ci. ak peut-être ak euh, son bi. Mm-hmm. ak des chansons yoo xam ni ça reflète vraiment l'esprit de xalam bu njëkk mm-hmm. donc ce qui fait que depuis un an ñu ngi fii di di préparer di ko togg di ko togg di ko togg. et je pense qu'on est assez satisfait du résultat quoi. Ah, ah. mais mais lan mooy seen secret euh, euh, Moustapha mm. wala sax 15 ans génn mais ba léegi. Mm. di def ay spectacle guichet fermé. ba léegi fu ngeen tëggee mu fees dell ba léegi fu ñu leen dégluwee dafay mel ni li ngeen mujjee euh, génne comme album démb ngeen ko liggéey lan mooy expliquer euh, longévité boobu mais je pense que au départ euh, xalam comme ni ñuy waxee rek y a des groupes au Sénégal ou des artistes au Sénégal xam dañoo màggandoo ak génération ah. boole ay génération yu bëri ah. ah, génération yi ne ku ci nekk nag am nga ci benn part boo xam ne bi toujours mooy sa référence au niveau de de de la musique et donc ça fait que pendant 15 ans toog nañu pratiquement defuñu album parce que on est plutôt un groupe de scène waaw ñu bëri xam nañ loolu on est plutôt la scène. Donc on a fait peu d'albums en fait par rapport aux autres groupes. Ah, ah donc euh, ça, ça Donc il y une certaine nostalgie ba nga xam ne bi ñuy bi ñu toogee pendant certains moments ñu break comme on dit parce que on faisait des breaks souvent. Uh-huh. dañu doon toog jékki-jékki gars yi déggatu ñu ne ba ànd uh-huh. on a fait un break. parce que uh-huh. on avait besoin tout temps de faire des breaks parce que groupe la ñu. donc groupe toujours besoin un moment ku ci nekk xaw a dem le break était un peu plus long et je pense que ça a joué sur la nostalgie et les gens se sont dit bon comme am faut am na boo yoo xam ne dañu xam musique bu xalam yëpp xam xamuñ mos yaakaaroon ne xalam <laughs> musicien yaa ngi dund voilà léegi mën o teg sax euh, sans jouer euh, ci ci ci turu ñenn ñu nekk voilà loolu mooy ay maam la ñu lu tax du ngeen màgget jamais ah, si si attends moo la wane ay photo y a quelque temps di wax escalier gi kër gi kër gi ah. Ah, <laughs> euh, album bi naka ngeen ko liggéeyee je que ñu ngi déglu extrait bi ci suufu. Euh, ñu ngi koy déglu ah, ci sama euh, you speaker ah lii la. waaw buy jar vingt cinq mille balaa ngeen dem di ngeen ko jënd. Oh. Youssou Ndour speaker la tudd. yes. maa ngi DJ. Bouba. <laughs> Euh, et puis ñu ngi ciy dégg esprit wu esprit wu xalam ah euh, comme ni ngeen ko waxee léegi nii te boo déglu woy wa dégluwul woy yi doo xam ni euh, esprit boobu moo ci nekk ba léegi parce que en fait on a tendance à dire que Sénégal dëkk bu rëy la il y a toutes les ethnies il y a il y a il y a il y a des sons partout il y a des uh-huh. richesses folkloriques partout uh-huh. donc ñun on a tendance à on est très attiré par la Casamance donc Euh, moitié cinquante pour cent euh, composition xalam euh, yi. Uh-huh. c'est d'inspiration de cette zone là. Uh-huh. parce que on l'a on est allé là-bas on a écouté des sons. Uh-huh. et donc ce titre là carrément fa la jógee. mais on a fait un voyage quoi. Ah. un voyage qui va jusqu'au Brésil. donc en fait. de lui montrer en fait le lien qu'on a avec euh, les autres pays ouais. de par la voie de l'esclavage ouais. ou aussi uh -huh. de l'immigration. Uh-huh. Donc c'est pour ça que nous on a voulu vraiment vraiment ci album bi faire des voyages quoi. Super. Mm-hmm. D'ailleurs même ci biir album bi mm-hmm. on a fait une ouverture, on a invité beaucoup d'artistes. Ah. Mais des jeunes artistes, cette jeune génération. Uh mm-hmm. -huh. On a en fait joué du khalam uh -huh. et on les a invités à s'exprimer pour voir ce qu'ils ont il y, a beaucoup qui ont grandi, par ah exemple, ah oui. avec les Khalam, par mm-hmm. exemple, les Awadi, Génération Rappeur, les Khouman, ouais. les Bahaou, ouais. Simon. Mm-hmm. Euh, ak dëgg Khalam du toj album. waaw et d'autres Marema, par exemple, la jeune ah. a fait un duo avec Brahms, il y a ah. Boubacar Icou. a euh, Kia qui a fait un petit truc là-dessus. Donc vraiment uh-huh. euh, album de Khalam. xalam la mais avec une dañu ubbi quoi c'est-à-dire qu'on a on a essayé d'inviter nos nos nos petits frères nos enfants en fait mais da ngeen doon wax que xalam sur scène lañ leen doon gis plus que ngeen di produire album est-ce que ay son yoo leen jouer sur scène mm. ngeen di ñëw def ci album bi wala da ngeen composer yeneen yu bees yoo xamante ne da ngeen koy dugal ci biir album yu bees tàq la yu bees tàq sauf benn benn ou deux la ñu reprendre. Mhm. mais dañ ko justement. remixé voilà rem pas remixé. Ah, mais en fait dañ ko jouer d'une autre manière ba pare invité. Mhm. benn génération pour ñu interpréter ko noonu. Ah. avec comment il le voit. c'est ça qui est intéressant on a joué deux titres yoo xam ni on les a retravaillés ah. mais en écoutant les musiciens qu'on a invités. voilà surtout était important c'était en fait de ce retour d'album. Mhm. que ça se fasse au Sénégal. on revient tout à l'heure ci Bouba doon wax léegi nii. ñun commencé def album fii. Mhm. bi def musique y avait pratiquement pas de studio. pas de studio le de Xalam a il mm. faut le savoir, deux micros. Donc les années sont passées, il y a eu une certaine évolution. On a vu ce que Youssou a fait ici. Voilà, c'est ça. C'est important. C'était important quand même que cet album-là, tu sais, même vous faites un ça, ce serait fait au Sénégal. C'est-à-dire qu'en fait, euh, parce qu'on vit dans le milieu musicien où on fréquente les, les de Salif Keita et tout. Quand ils te disent que, en fait, c'est Youssou qui a compris la chose le premier. Oui. C'est-à-dire que nous tous, on voulait aller jouer, vivre, ouais. aller dire. Ouais, euh, nous uh -huh. a dit, moi, je reste moi et Tout. Uh-huh. Et en fait, beaucoup de gens regrettent pourquoi ils ne sont pas espérés. Ouais. Ils plus jeunes que nous. Absolument. Mais dans l'autre sens aussi, il fallait que aussi, nous amenions aux aides collectivité. C'était au Bubuntu aussi. Uh-huh. Et les, les, les, les deux. Les... Mais ne pas rester là-bas. Ouais, ah. c'est-à-dire, nous, <laughs> rester, c'est vrai. Ah. <laughs> Mais j'étais dit. oui. quoi c'est important ouais, ouais. l'album là c'était le fait de pouvoir le faire ici au Sénégal pourquoi parce que y avait des on a eu am nañu tey ji ay jeunes yoo xam ne xam nañu matos bi. Ah. mën nañ ko liggéey comme matos bi c'est le même. Ah à ah Dakar qu'en Chine c'est le même. donc jàng nañ ko mun nañ ko donc on pouvait faire se mhm. permettre de faire cet album là. ici au Sénégal avec cette ouverture. voilà heureusement que vous mhm. toujours la di ñu di ñu di ñu bégal Henri Guillabert. bu compilation nga kontaan. mais aussi mm. bu liggéeyee ci xalam mm. euh, nga euh, kontaan woy bi mu mujjee defar def na tour du monde muy mm. jëleeti. jëleeti. ku la bëggee néew. fu ma koy jëlee fa la koy jëlee. ti waaye waaye loolu moo gën a tuuti ci ay way yoo xam ni daf koy euh, defar donc albumu xalam dina génn le 21 janvier avant ngeen ñuy wax euh, naka la ñu mën a def quand même euh, pour am album boobu ak qu'est-ce qui est prévu pour cette production bu xalam 2 on va on va ñu dugg ci internet bi ah. xool mm-hmm. nga xamante ni actuellement ñooy def buzz. Mm-hmm. nous nous ne sommes pas Charlie êtes-vous Charlie. c'est-à-dire que moi je suis partagé c'est très compliqué d'accord d'accord moi je suis je suis Charlie parce que c'est le geste que je déplore parce que ça nuit en fait à la religion d'accord mais aussi mhm. on ne doit pas on doit respecter les trucs c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on peut pas être dans une communauté ba pare di jël di di di wili pande benn kii bi. y a un respect. Mm-hmm. c'est ça. non moi je suis pas Charlie. je suis pas Charlie. non tu es comme nous. je suis pas Charlie. nous nous ne sommes pas Charlie. alors qu'est-ce Charlie. Mm-hmm. moom mooy man damay yaakaar ne j'espère que Khalifa Diakhaté suba dina ko teg ci table bi. j'espère mais parce que dama ko naroon laaj mais je me suis dit que peut-être dina nekk sujet. parce que man xamaguma euh, donc euh, comme le jour est-ce que Boubou Ndour et Charlie.